Euh, Gàkku 2024 Papa Momar Ngom euh, ñëw moom itam euh, daal di ci daal di ci bon man dama dama yëgaatoon ci kaw de. Hmm. <laughs> en tout cas daal liste bi suba la. <laughs> Bassirou Diomaye Faye Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany voilà Bougane Gueye Dany. Amadou Ly Thierno Alassane Sall kon ñii ñoom ñoo war a jàll. ci ngoon gi waaw mu nekk lu am solo lu am solo. Hmm. liste noonu donc or par rapport ak tirage bi. Hmm. deuxième tour yi lu ñu lu rek ñi nga xam ne ñoo gën a néew la ay doublons. donc ñooñu la ñuy euh, njëkk xool li nga xam ne moom mooy moom mooy seen xam euh, ñoom euh, parce que ginnaaw ñoom ñoom ñoom am amuñu ay doublons yi nga xam ne war nañ ko war nañ ko mottali lu lu toll lu ni mel donc moo taxit nga xam ne moom mooy ay dëmb démb indi na si également ay leeral mais tam démb ñu gis tamit ñi nga xam ne tey ñoom ñoo wax ne ñoom seen i fichier mhm. dañu wax ne que mënuñ ko exploiter c'est inexploitable donc ñooñu tamit def nañ collectif sept membres ñëw di yëkkati yàbb bi euh, si li nga xam mom moy problème fiche électorale bi waye balaa bobu xamna naa dinañ ci gëna a ñëw waaye euh, dañuy wax rek tay tamit jour spécial la comme gars yi ni ñu xam koy lii di nga ko fàtte si taarixu li nga xam mom moy réew mi nañ ko nañ bàyyi xel kan kan moy jall ñen ñu lañu exclure est-ce que les ex alliés du pouvoir dañuy jall wala ñi nga xam tay moy ñu jappé né ñom peut-être ils sont de l'opposition ñoom tamit ba xam dinañ dinañ jàll. la question dal xam nga démb dem maa ngi gis euh, aluntine bu Africa Jom euh, ñi ngi taxaw ak suñu suñu concert Ngoné Saliou mm-hmm. euh, démb mi ngi wax ni vraiment mbiri yi xel. Mm-hmm. le fait que ñu gis des des des des anciens premiers ministres ñoo xam ni bu ñu juddoo ba légui mm-hmm. ñi ngi taxawal bon pas ba ñu juddoo ba légui sax pour pour ne pas exagérer presque mën nañu plus de 10 ans ñi ngi taxawal sen parti politique di yëngu ci ci wàllum politique ñu xey benn bes ben ben ben Sénégalais lam da bo xam ni. Euh, mi ngi soogay taxawal parti politique am ñëw jàll état bu parrainage devant euh, des gens ces ministres yoo xam ni moom mu ni loolu vraiment doy na xel te euh, mbir mu ñu mbir mu ñu war a xoolaal xam nga tey ku ñu mel Alioune Tine bu demee bay questionné wu ci loolu déjà demb hier madame Aminata Touré demoon na demoon na demoon na demoon na gisi ko n'est-ce pas waxtaan ak moom mais lu ci mënti am tey jii dinañu dinañu gën a amaat aperçu ci loolu noonu ak ak kàndaay xam ni ngi war a jàll bu ko defee ñu nuyu suñu consoeur Ngoné Saliou bàyyi ko mu nuyu

Ali Mamadou Dia bu PUR nga xamné 202 la régulariser euh, ci wa tu euh qui di Serigne Djibril Fall également Mamadou Lamine Diallo Mohamed Abdallah wax ñu fi euh, premier ministre momi tam euh, ci lo la Aliou Camara Elage Malik Gakou Pape Ngom ci suba ci ki fi ministre de l'intérieur di ak euh, ki nga xam ne Souleymane Ndéné Ndiaye Abou Mbaye Aminata Touré El Hadj Mamadou Diawo Amadou Seck Bassirou Diomaye Diakhar Faye El Hadj euh, Abdourahmane Diouf muy docteur Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany Amadou Euh, Thierno Alassane Sall nous faisons rek 93 dossiers yi nga avons nañu ko euh, conseil constitutionnel neuf rek ñoo ci euh, mm-hmm. ci premier tour na ci Boubacar Camara Amadou Ba Anta Babacar Ngom Habib Sy Karim Khalifa Sall professeur Daouda Ndiaye 62 nous avons comme ni nga étape cruciale nous avons pour liste finale candidat yi nga présidentielle la tâche publié publiée. koy commission de parrainage bi vérification des parrainages examiné na ñu ci dossier comme leen rek ñi nga nañu ak ñi 48 heures euh, leen euh, li nga xam situation par le dépôt dans les délais de 48 heures euh, mandataires yi nous gis nañu ci bari ne Nous li daal doublon externe nous avons un conseil fonctionnel mi nous communiquer par rapport à la communication bi ne lu jëm acte de notification yi régularisation par yi ñom mandataire yi wax nañ leen ko sànq ne dina leen euh, xaar filé lu ci toll nam ci 35 ñi nga xamné ne recalé woon nañu leen bokku na ci demb rek ñi def collectif muy collectif boobee nga xamné mom euh, walum clé USB yak yoyu lolé lañu ñu doon euh, ñaxtu muy alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables moy ACSI gis nañu ne bi nga xamee ne ñu ci bari dañ leen recalé parce que problème clé lañu am né clé bi leen jox kenn mënu ko càmbar kenn mënu ko xol ci lañu def ben association mu ben

Natangé euh, itam ngi fi Mamadou Lamine Gueye di candidat indépendant ba ci Adama Faye di rakku première dame dem na joindre euh, ci bobule alliance coalition Adama euh, président itam euh, Mohamed Madane Kan bokk na ci coalition bi muy coalition Dundu euh, coalition Jeff ak Tion coon Nya ci alliance le Mohamed Fadel Koné di coalition Kone 2024 ak Omar Sylla nek euh, candidat indépendant objectif bi buñu ñu ci ñom li ñu bëgg moy ñu rétablir sen ay droits bien que contrôle ñu ba pare mais nous ñu ko défé contrôle bi ak non traitement des fichiers itam de parrainage lolu nee juridiquement wala techniquement nekul ben fo xam mënañ fa jappandi pour mën leen écarter eh, ci course eh, présidentielle cours présidentiel. Il candidat yi nga candidats qui ont nañu cadre de itam ñi ngi donné eh, méthode de contrôle bi nga xam ñu koy def fi ndax nañu informaticien bi sax na liggéey nonu ñi ngi interpellé aussi le président du conseil constitutionnel mu def preuve de sagesse ndaxte jàkk nañu ci logique boobu la moom tam Omar Sylla nekk ab candidat indépendant à l'élection présidentielle mi ngi raconté ne euh, li nga xam ne dal na ko ci conseil euh, constitutionnel informaticien bi tenté itam visualiser seen clé euh, te ñu ne nag loolee kenn mënu ko exploité moom dellu na ci ci nu mu gën a yaatoo mais li ñuy ñaawlu daal mooy ni nga xam ne jot nañu ko jot na leen recalé te fi ñu ko teg du fenn parce que bu ñu ñëwee xool sax sa clé kenn mënu ko exploité dafay nekk motif

Euh, dina bax mu joxe ay euh, explication également Aminata Touré comme ngeen ko waxee ancienne premier ministre bokon tamit ci euh, ñu doon liggé ci walum parrainage ànd ci ak président de la république tay ñu recalé ko parce que dañu wax né amna ay parrain yo xamné ne matalu ko ba mu euh, doxantu ñëw ba ci buntu conseil constitutionnel euh, di fi wax donc l'histoire retiendra que né qui euh, organisé won ay élections ci fichier bobu tay mo taxaw di xol ndax fiabilité amna ci fichier bi ou pas. mais Aliou dugg naa gese ba tuuti ñu def si benn commentaire par rapport est-ce que mom du dund les conséquences manam conséquences yi nga xam ne fichier bi bii ginnaaw Sénat moom waxee ne Sénat mom mom fichier bi mom yorul fiche. mënu ko rétablir mënu ko mise à jour. tey Aliou Ngouye moom mi nga xam ne moom euh, nekkul def gis leen yaa ngi ko wax léegi ngoone est-ce que il victime si li nga xam ne moom mooy lu ñeel wàllu parrainage ak fisc ak fisc waaw xam nga il faut ñu dellu si ci Sénat Sénat li tax mu <coughs> mu génn wax moo dafa am ay message yoo xam ne gis nañ ko ci internet bi ay ay ay vidéo boo xam ne c'est devenu viral hmm. ñuy wax ne képp koo xam ne bëgg nga xam ndax yaa ngi ci fichier électoral bi hmm. ou pas da ngay dugg ci euh, site Sénat bi euh, di nga ko xam boobu ak léegi ñi mën a wax na ñu ngi ci fichier bi ak yooyu yow mënoo wax na yaa ngi ci fichier bi keneen ak keneen mënul wax ci fichier bi hmm. bu ñu demee ba démb kii di Mary Teuw Niane nekk candidat moom ci boppam génn nekk ci fichier bi euh, Mohamed Ben Diop fi la taxaw nee voté na ci élection législative bi ci fichier bi donc boobu le fichier est-ce que tay mën nañu xaar opposition bi dem ci élection ak euh, ñi fi nekk gagner élection yooyu lolu c'est autre chose bien que ñu ayons ci étape bi nga xamné mom étape parrainage ñi euh, ñu ci communiqué bi nga xamné Sénat la def commission électorale nationale autonome muy attirer attention wu les électeurs que version le euh, fichier électoral actuellement disponibles. disponible euh, système, quelle kenn mise à jour encore, euh, relativement à l'élection présidentielle de 2024 nga c'est dans quelques semaines Euh, ne dès lors mi déconseille fortement aux électeurs l'utilisation des informations actuellement sur le site Madame amul kenn ku utilisée l'information utiliser information yi nga préciser également que données y concernant l'élection législative récente sont incomplètes et peuvent être erronées élection législative yi ñu donnée données yi nga fekkee bu yàgg fay xol mën na nek lo xamné dafa xawa a erroné wala nekkul données yu mat ci communiqué bi nga xamné Sénat mom moko def euh en ce qui concerne en ce qui concerne les lieux et bureaux de vote donc ci communiqué bi muy informé né euh, bés bu disponibilité données actualisées amé amee dina ko mettre à la disposition des électeurs dès que possible

est-ce que gënul apte à nous expliquer lan moo nekk li nga xam ne mais effectivement xam nga hmm. démb ñu ngi doon dugg ci ci question genre euh, genre question boobu non xam nga da ngeen wax Alioune bi ngay wax madame Amine Touré hmm. mais sans oublier Mouhamed Boun Abdallah Dionne qui qui était euh, le premier ministre à l'époque te yaakaar naa un premier ministre aussi tamit moom moo nekkoon le chef du gouvernement moo nekkoon kilifa wu Aly Ngouille <laughs> il était son